kanam bi soppeeku xarxaram soppeeku Pape Moussa sànq maa ngi ko doon junju uh, ci ndorteel gi mooy uh, ci proposition yi uh, ci jëlee conseil constitutionnel def ko cour constitutionnel déjà lan mooy différence bi. xam nga ci juridiction yi même appellation yi rek boo ko déggee. Euh, bu ci nekk revêtir na benn spécificité. xam nga euh, conseil. conseil constitutionnel c'est-à-dire euh, avant même la réforme précédente moom avis la doon joxe parce que koo laaj conseil effectivement avis la lay jox. Hmm. mais après def nañ réforme pour ne am na ay décisions mais dans un passé très récent gis nga ñu wax conseil constitutionnel tudd ko ci lu bari. Hmm. mais ni nga mënee dem buñ ne la dañuy juger diw cour suprême mën nga dem couvrir ko. Hmm. seetaan. Euh, dégg liñ ñëpp wax boo demee euh, cour d'appel tribunal d'instance tribunal de grande instance. Mm. mais est-ce que mos nga gis loolu ci conseil constitutionnel. Mm. doo mën a dem. parce que l'audience n'est pas publique. Mm. ci conseil bi benn ñaareel ba l'audience n'est pas contradictoire maanaam euh, yow dañ la boo amee ci yeneen juridiction yi da ngay ñëw andi say avocat ngay wax kii di wax ngeen di con confronté donc mm-hmm. contradiction boobu noonu amul ci conseil constitutionnel yàq Karim Wade kii essayer de à la nationalité Mm. le principe n'est pas contradictoire donc euh, foofu amul ngay taxaw di wax kii di wax nangam donc parce que conseil la mmh. ces décisions ne sont pas susceptibles de recours mmh. euh, conseil constitutionnel bu xasee ba wax euh, amul benn recours boo mën a def alors léegi bu doon cour lañ nekk am na ñoo xamante ne je pense euh, ci yenn dëkk de la sous-région am na ñoo xam ne tribunal constitutionnel la ñor mm. tribunal constitutionnel tribunal constitutionnel c'est que foofu day am sax mën a am appel mm. appel cour constitutionnelle du am appel mais dina am recours au niveau de la cour suprême. d'accord. cour constitutionnelle le principe est contradictoire mm. les audiences publiques c'est-à-dire boo gisee euh, boo déggee fu ñu ne cour rek. Hmm. du am appel mais dina am beneen forme de recours muy la cassation. justement loolu laa naroon la laaj beneen forme donc. Mhm. fii euh, bu nekkee cour constitutionnelle dina am. kon mhm. parce que euh, boo xoolee waa ñu ngi ko doon wax ne euh, cour de CREI amul mhm. ma da ngeen fàtte ni mu tudd cour la tudd moo tax. doo amati parce que kii def appel cour moom cour d' appel ñoom ñaar ñoo tolloo kon moom décision bi cour d' appel di rendre ak décision bi muy rendre moo topp moo ñoo ñoo tolloo kon kay ci même juridiction. ci même niveau euh, hiérarchie munoo faa defaat appel donc il faut que pour pour nga def recours il faut nga dem ci niveau bu supérieur. Mhm. donc kon tant que l' affaire s' appelle cour de répression de l'enrichissement illicite mënul am appel haute cour de justice. Mhm. Euh, cour d' assise. d' assise du am appel. loolu tax ñu dindi ko fi remplacer ko par chambre criminelle. Mhm. donc cour moom foo ko fekk du am appel. alors léegi nag cassation. mais dina am cassation moo tax CREI Karim Wade demoon na cassation même si genre doo mën a def appel mais di nga mën a. parce que cassation beneen forme de recours la. Mhm. recours yi dafa am appel am cassation léegi nag cour euh, constitutionnelle boo ko amee effectivement les décisions du conseil constitutionnel seront susceptibles de recours. Mhm. donc différence bi loolu la donc conseil constitutionnel euh, peut-être pour boo xoolee li muy def déclarer incompétent dafa bëri. voilà fii nii euh, chambre dina gën a dina gën a dina gën a mën a yaatu dëkk yu bari yoo xamante ne euh, ci euh, en matière constitutionnelle cour constitutionnelle la ñuy wax parce que moom moo gën a am kii bi donc je pense que. kon yow da bokk ci ñi gëm ne dañ ko war a changer. oui oui il faut une cour constitutionnelle parce que conseil constitutionnel bii nii tamit hmm, mooy loolu te bu bu boobaa it. nomination ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay euh, kii parce que en fait euh, ce n'est pas euh, loo xamante ne day day c'est exclusif aux magistrats hmm. boo demee conseil constitutionnel ah, di nga fekk justement loolu laa bëggoon laa hmm. nga hmm. fekk avocat en France qui révolutionne les travaux au cours conseil constitutionnel ce n'est même pas un juriste c'est un sociologue moom mu révolutionner les travaux du conseil constitutionnel alors kon conseil constitutionnel c'est une juridiction qui n'est pas exclusivement juridique okay. parfois donc euh, nga permettre ko mu gën a am large champ de manœuvre mhm. ba pare euh, principe contradictoire publicité mhm. des audiences nga mën koo teewee keneen mën koo mhm. teewee euh, bu boobu bu ñu ci amee décision décision bi mën a am e, une voie de recours loolu je pense que ni c'est bon parce que Sénégal moom jàpp na ci problème politique yu fi bëri le conseil constitutionnel est au cœur Mm-hmm. de tous ces conflits mm-hmm. politiques là. Mm-hmm. donc euh, changer la forme. bi dina dina euh, waa euh, gis nga ne changer la forme dina doon lu am solo wala ñu maintenir ko maanaam reste mu doon conseil constitutionnel. waaw en fait man changement bu fekkente ni dina am des compétences beaucoup plus élargies ñaar ñaari mbir laa gis ne ce serait important changement bi inclure ko. benn bi mooy. comme mu am compétence élargie nga xamante ne duñ fi nekk lu ñëw rek ñu déclaré wu incompétent mhm. ñaareel bi également mu am possibilité de recours nga xamante par exemple parce que boo xoolee ci élection présidentielle yi passé résultat provisoire bu ko publié. Mhm. ce sont les les mêmes ñoom ñooy statué waat pour pour pour bu amee ay yenn recours yi diggante bi pour ñu xoolaat lële. donc bu mhm. fekkente ni examen ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu recours yi. nekk nañ mhm. ñoo xamante war nañu war donc en pour finaliser ci point boobu noonu ci réforme yeeg yu ni mel daal. indépendance de la justice certes nekk na bu ñu wax indépendance de la justice. Hmm. juge yee tax ñuy wax mais pas le procureur dama ni indépendance ci procureur musiba la ci réew. Hmm. ah bon comment ça. ñu dagg le lien ombilical wala cordon ombilical. wala la tutelle du ministère de la justice sur les parquets. Hmm. musiba la ci réew de. pourquoi nga wax loolu moom c'est dangereux. c'est dangereux pour tout régime. mais loolu mooy tax Pape <laughs> politicien bi toog fi mu toog. Mhm.

waaw léegi juge bi le juge peut ramener les choses à leur juste proportion. mais bu même bu dee procureur dafa excès de zèle wala arrestation boo xam ne jaarul yoon. mais il appartient au juge maintenant juge bi mooy xool parce que bëri na fi ñu ñu fi jàpp ñu dem juge seetal la. xool ci biir mais deux ans euh, ok léegi yow côté boobu nga ko jëlee man xam nga beneen côté bi ma ko jëlee mooy li tax ma d'accord ma pour que procureur ñu jox leen indépendance mm-hmm. joxoon naa ko fii jotaay bi parce que am na ñu ci d'accord ak man am na ñu ci d'accord lu man mm. te nee la question bi ça ça ça fait débat au sein de PASTEF mm. il certains cadres de PASTEF ñoom ils sont pour que ñu dagg tutelle boobu noonu mooy procureur indépendant mais am na ci ñoo xam ne seen position mooy lii ma position bii ma jël maanaam mm-hmm. il n'est pas question procureur ñu leen koy ñu parce que mm-hmm. gis nga état exécutif il faut que mu am tànk ci biir justice bu dee juge moom d' naa juge moom le juge n'est soumis qu'à l'autorité nga joxoon naa fi exemple ne bu procureur xëyoon tey jii ne day dem arrêté un xalif général fan la mun lan ma rek ah, non non c' est ah, des intouchables wala impunité exemple la rek mm-hmm. mm-hmm. un xalif général xam nga Pape dafa am nit loo xamante ne texte ya koy wax rek mais y a des dans ce pays de mm-hmm. am na ci ñoo xam ne boo leen di arrêté dëkk bi di tàkk tey Ah, c'est des réalités nañ ko nangu rek am na ci ñoo xamante ne aucun président n'ose donner des instructions pour ñu arrêter leen fii ci biir Sénégal am na fi <laughs> loolu moom coolee bëri rek waaye ah, am na fi de. Hmm. yow xam nga ne loolu am na fi yow xam nga ne loolu am na fi ñi ñu xam nañ ne loolu am na fi mais waxe en fait waxee mu noonu pour néew ma yoon néew ma ni ñii buñ defee lu buñ violé loi dara waru ci fekk. Hmm. mais dama ne côté bi ma d'accord les ñu may leen indépendance bi si jiitu mooy loolu bu ñu bëggee jàpp koo xamante ne. peut-être jàpp bi dëkkul si yoon jaarawul yoon te jàpp bi mën naa indi jëyee ci biir réew mi ñaareel bi ñaareel bi tax d'accord ma ci ñu libéraliser procureur yi ce qui s'est passé avec les détenus politiques mhm. les il faut savoir une chose am na ci ñoo xam ne seen xalaat lañ joxe ñu jàpp leen mhm. am na ci ñoo xam ni justice lañ critiqué ñu jàpp leen mhm. justice mère leen jàpp leen convoqué placé sous mandat de dépôt. yow président Diomaye. juste voilà euh, bu amul exécutif bu mën a reculer le procureur. bu mën a reculer parce que procureur moom bu demee sàkku ñu mainlevé ci juge d'instruction bi da koy exécuter bu amul exécutif bu mën a reculer ko léegi kooku critiqué wu justice waa justice mhm. mooy doon ko doon mën a jàpp doon ko doon mën a jàpp ba koy bàyyi bu amul woon cette mise là léegi mhm. yow parce que euh, man da xam nga la laa d'accord mhm. maintenir euh, lien boobu noonu sans pour autant procureur am pouvoir de tëj parce que man mën nga maintenir parce que euh, c'est c'est gouvernement ki définit la politique pénale donc foog mu am ku koy exécuter la politique pénale en question le procureur mm mais bu boobaa la procureur boobu noonu maintenir le euh, lien de subordination mais da nga koy dindil pouvoir yi mu yor dafa bari bu boobaa waaw parce que boo ko bàyyeelee pouvoir bi rek dafay mel ni pouvoir bi ci ministre bi la teguwaat qui est un acteur politique ñu encadré ko en fait. très bien procureur mënatul teg kenn mandat de dépôt mm -hmm. non on Ah. juge de la liberté et des détentions d' accord on est d' accord d' accord bu boobaa procureur bi doonu doon lii mu doon nii maanaam plus de 2000 personnes maa ngi gis Karim di la ko wax keroog nga koy naan Karim noppil noppil mais en fait d' accord d' accord mais mais mais wax dëgg la tamit mhm. Karim inventé wul mhm. ah waaw mais kan moo def nit ñi mandat de dépôt ay nit la mhm. nit yooyu def ay nit mandat de dépôt après ñu jékki-jékki waat beneen nit jóge ci kaw ne ba bàyyi leen ñëpp ngeen waat ñëpp kon li ngay déduire mooy xanaa kon seen patron moom moo leen di woon wax jàppal. Hmm. mën na bañ a nekk de. Hmm. am na arrestation politique yoo xamante ne peut-être Macky Sall sax yëgu ko. Hmm. peut-être peut-être que ki nga critiqué moom moo am benn mainmise bi ci euh, kii bi wala mën na am na justice bi ci boppam nga critiqué. am na mais tout lépp lu mu mënti doon xoolu ndax infraction nga def wala dara mais dafa am problème personnel problème politique léegi nag boo dindilee politique euh, pour procureur son pouvoir là. nga am benn juge buy apprécier de la détention et des libertés mhm. nga am euh, juge boo xam procureur boo xamante ne boo la nekkee devant le procès pénal yéen ñaar yéenay tolloo yéen ñaar mhm. maanaam moom warul am plus de pouvoir que yow ba pare jàkkaarloo ak yow mhm. parce que le procureur est parti au procès pénal comme que dafa far da nga koy la sinon rupture d'égalité lay am rupture d'égalité boobu pour nga kii ko foog nga delloowaat procureur mu tolloo ak euh, bi mu tolloo ak partie civile bi ñu plaider boo demee dans le euh, système euh, anglo-saxon boo xoolee procureur yi duñu toog fenn sax naan magistrat debout de. Hmm. fii avocat yi taxaw lay taxaw. donc sur ce point je suis d'accord léegi nag maintenir ko bàyyee ko pouvoir mooy defoon li amaat rek euh, président day ñëw. ministre ñëw ñu nekk ay politiciens ñuy taxaw xool wooy non Pam Ndiaye li mu wax nii kii boo ko bàyyee mu wax te mu xaw a yóbbu opinion bi fenn eh, day woote a la à à. Euh, appel à l'insurrection. <laughs> boobu sax garaaw provocation à l'attroupement. provo nee na Pape day provoqué attroupement. lu ne gis nañ ko. xam nga lu ne jaar na foog loolu loolu loolu mënuñ ci mënuñ ko parce que mm-hmm. président Diomaye mën na bañ am ambition euh, def loolu. euh, premier ministre le ministre de la justice d'accord mais boo bàyyee les choses telles qu'elles euh, demain après demain keneen moom mooy ñëwaat les mêmes causes reproduisent effectivement bu dee am na juge de la détention moom boobu d'accord boobu moom boobu moom xel mën na dal ci ñu may auto procureur ñu kase kii boobu noonu mm-hmm. waaw parce que bu boobaa dañuy encadrer ay pouvoir yi ko dese te yenn pouvoir yi dootu ko dootu ko dootu ko amati mm-hmm. sous mandat de dépôt yi réforme yi